Euh, Fary lan mooy doon analyse bile ginnaaw ba nga dégloo le président du parti passé Ousmane Sonko. je pense que dafa di message boo xamante ni <clears throat> on s'y attendait un parce que sànq rek boo seetloo maa ngi lay naan euh, li nga xamante ni ñu ñu koy junj muy le 19 certainement dina ci indi ay leeral tey nag moom le président de parti Pastef euh, Ousmane Sonko daal dina si ñëw. wax na ci li nga xamante ni mooy actualité politique bi ñu nekk actuellement muy préparation législative yi wax na itam partem mbégte bi mu am en tout cas ci taxawaay bi nga xamante ni taxaw nañu ko ci choix wu en tout cas candidat yi ñuy investir ci liste yi tamit wax na ci naka la bëgg ñu campagner li nga xamante ni mooy yooyu les législatives parce que tey euh, sànq wax nañu ko. nee nañu Pastef mooy parti bi nga xamante ni depuis le début en tout cas sa création boo seetloo li nga xamante ni mooy financement de campagne wala boog financement politique yi nga xam ñoom ñu ngi koy utiliser boo saytoo seen biir la génnul benn yoon seen biir euh, fii nag parti yi bëri na ñoo xamante ni amaana hmm, dina am ay euh, lobby externe yoo xam ne ñooy ñëw indi seen doole wala am nit ñoo xamante ni tey jii ni ñooy ñëw jàpp si mais Pastef ce qui fait sa particularité c'est que partisans yi ci boppam ñooy génnee li ñu am ak li ñu ñàkk dajale ko jox ko ki nga xamante ni mooy leader bi ne ko doxalal sa vision et sa mooy li nga xamante ni en tout cas loolu la woowaat euh, partisans yi mile mais itam loolu la woowaat ci sympathisants yi parce que nee na. fi mu toll nii nam sax am nañu en tout cas tout l'appareil étatique à la disposition am nañu li nga xamante ni mooy les moyen de l'État yi nga xam ne moo nekk à la disposition mais dañu préférer en tout cas euh, li nga xam ne lañ daan doxee maanaam ci seen ñàkk li nga xam ne lañ daan doxee maanaam ci seen am-am nañu continuer dox ci loolu tey soxlawuñu dem tibb ci keesu état dem campagne te sax loolu la muy la muy la muy gën a favoriser mooy lan tey da ngay ne défaveur du am amaana tey nit ki nga xam ne am na moyen état à part mën mën na def ci loo euh, loo xamante ni ci campagne keneen ki nga xamante ni amaana amul loolu noonu du ko mën a def donc tey bu ñu gisee Pastef bëgg continuer ci ligne bi nga xam ne la nekkoon te nag moom Ousmane Sonko yàgg wax ni bés bu demee ba yàlla jox ko réew mi itam taxul mu jël ci li nga xam ne mooy keesu état pour daal di campagne politique donc loolu aussi dañ koy rafetlu. Mhm. maintenant nag li nga xamante ni hmm, la woote le 19 muy lan Dakar Arena bëgg na fa dajale. ay partisans bëgg na fa dajale ñi nga xamante ni tey ñooy ay sympathisants am mhm. bëgg na waxtaan ak ñoom ci naka la ñuy demee ci les élections bëgg na waxtaan ak ñoom itam ci naka la bëgg financer campagne bi la ba wax na sax li nga xamante ni mooy package yi mu teg donc daal dafay doon mbir moo xamante ni bettuñu lool wax dëgg yàlla parce que sànq rek ñu ngi ko fi doon wax donc bu ñu gisee en tout cas mu wax ci financement bi gis itam mu wax ci li nga xamante ni mooy taxawaay parti bi ñun daal dañuy jàpp ni rek euh, mbir la boo xamante ni on s'y te xam naa ne itam ñi nga xam ne ñoo nekk di ñu suivre actuellement travail sans limite TV doon mbir moo xam ne ñu ngi ko doon xaar Albourakh. d'accord kon entrée bi 1000 lay doon. waaw noonu lañ ko mën a jàppee parce que. <laughs> xam naa Neymar moom moom mooy moom mooy jox 1000 francs Neymar moom mooy jox 1000 francs alors bëggoon naa nga taxaw tuuti. ci euh, parcours bi nga xam ne wax na ko naam mhm. ba ñuy commencé campagne amuñu oto wax na ko ci biir message bi nga xam ne doon na ko lancé des fois dañuy dugg ci benn dëkk dañuy dox ay kilomètres et tout ça tey mhm. Euh, mbir di dox ba ñu nekk au pouvoir war a dem ci ay élections législatives dégg itam ni ko le ministre des infrastructures waxee la fois passée mhm. euh, moom la premier ministre wala plutôt le président du parti Pastef ñëw dëggal ko mooy ñenn ci ñi nga xam ne mhm. dañ leen a jox ndombal tànk nañ ca war a taxee waaye itam ñi nga xam ne ay militants lañu mhm. sympathisants li nga xam ne war nañ koo participer loolu lan la bëgg a wane foofu. de manière symbolique mooy wane ne dans tous les cas ku ci nekk itam di nga daal di participer à la sauce parce que euh, yàggul dara ñu ngi ko dégg El Malick je pense wax na ko. nee na ci financement parti bi ñoom ñëpp ñu fal. chaque fin de mois sa salaire dix pour cent da nga koy virer ci li nga xam ne mooy keesu parti bi. Mhm. parce que ñoom noonu la ñuy financer seen i parti loolu ba mu sax waxaguñu woon ci li nga xam ne mooy financement campagne yi la donc bu ñu gisaatee premier ministre ñëw waxaat lu ni mel itamit. suñu xel day gën a dal ci wàllu woowee maintenant euh, li nga xam ne mooy mille francs par euh, partisan bi je pense que c'est c'est c'est très rusé de le faire. Mm-hmm. parce que tey ah, xam na ñu ne ñu bari bëgg nañu ñëw tey am na itam ñoo xamante ni amaana seen seen seen doole seen poche diisul yenn diis yi ba tax ñu ne képp koo xamante ni war nga mën a ñëw rek ci mbir mi bëgg nga jàpp itam ci li nga xamante ni mooy campagne bi indaaleel 1000 francs yoo gànnaa yow 1000 francs yoo xam ne bañ na ko ba nee na participation symbolique la mhm. maanaam képp koo xamante ni yaa ngi ñëw foofu sa Dakar Arena di nga indaale 1000 yoo xamante di nga ko joxe dugg mais aussi participer ci li nga xamante ni mooy financement campagne boobule mhm. loolu tey benn stratagème la boo xamante ni rek moom Ousmane Sonko en tout cas leader de parti ak parti bi nga xam ne mooy Pastef les patriotes teg nañu ko pour mën a am li nga xamante ni amaanam mooy astuut te nee na nag ñu fii donc on s'attend bien évidemment à ce que moom mu daal di déplacé wu dem au niveau de l'extérieur waxtaan rencontré ñi nga xamante ni ñoo les sénégalais de l'extérieur parce que bu ñu déggee kàddu yu ma wax nee liñ fi def dinañ ko def feneen fi nga xamante ni foofu la sénégalais yi nekk mm-hmm. donc soit moom mooy dem wala boog kenn ci parti bi ñoo xamante ni peut-être oyof nañu ba mën a def boobu le voyage ñu daal di koy def jàkkaarloo ak sénégalais ak partisans yi fexe ba ñu ci li nga xam ne mooy campagne boobu la ñu war a tëg ma d'accord kon nag mi ngi noonu ñu xaarandi yeneen ci ay réaction ndax nag am na may ku may lijjanti léegi bu fekkee noppi ni rek ñu daal di ko jël bu ko defee moom itam mu wax ñu exactement lii nga xam ne le président du parti Pastef Ousmane Sonko wax na ko lan moo ci euh, gis-gisam kon nag mbir yaa ngi noonu déclaration wala plutôt message bi nga xam ne le président du parti Pastef daal dina koy lancé ses militants ak seen sympathisants maa ngi dégg itam yenn ci réaction ñu naan bu ko neexoon tey mu tibb ca kees ga ne lii lay campagne yi mais si xam nga fàttali na ko nee na dans l'histoire Pastef bi ñuy tàmbali te man sax je ne parlerai même pas de mais on se rappelle très bien des séries euh, bi nga xamante ni euh, projeté woon nañ ko keroog yàggul dara Grand Théâtre mhm. bi ñuy wax bi ñuy soog a démarrer Pastef les patriotes quand même <laughs> euh, bi ñuy démarrer ay fonctionnaires la ñu woon sert mais ku ci nekk am nga loo xam ne mu ngi sa ba nga xamante ni doo mën a yëkkati yenn somme yi du ko def ci parti politique mhm. mais teewul gis-gis bi ñu amoon bëgg-bëgg bi ñu amoon vision bi ñu amoon en tout cas pour Sénégal xamoon na ni il fale que ñu sacrifier wu maintenant qu'est-ce qu'ils ont Ousmane Sonko à un moment donné il a été radié liggéeyatul ñi fa nekkoon itamit mënuñu fësal seen appartenance politique parce que dañu nekkoon ci mission boo xamante ni mënuñu woon wane ne effectivement ñu ngi militer pour un parti. Mhm. mais teewul à chaque fois bu ñu dajee ku ci nekk di nga a indi sab dara teg ko sur la table pour participer en tout cas ci li nga xam ne noonu la parti bi doxee. te li may wax ni c'était en 2014. Mhm. Sonko ñu daal di koy de par sa portée de par ni muy waxee mu mu attirer plus d'un ku mel ni Alioune Sall nekk actuel ministre des télécommunications nekkoon fële ca France si la daal di teg benn projet boo xamante ni en tout cas mooy permettre à ce que mu apporter des fonds à ce parti là moom bi mu nekkee France xamul woon sax ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko peut-être daf koy dégg juste par son discours dafay gis en tout cas intervention yi muy def mu jàpp ni kii kat ku mat a jàppale la mm-hmm. si la xamante ni ñoom sénégalais de l'extérieur yi ci la ñuy commencer dugg dugal seen xaalis ndànk-ndànk di dugal seen xaalis ndànk-ndànk loolu moo waral bi jëlee xaalis boobu sax contacté ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ne ko ah ñun de bëgg nañ la jàppale lii pour que liggéey bi nga xam ne nga nekk di doxal nii muy parti Pastef mu doon luy mat mais moom dafa bañoon catégoriquement ne non du ma ko jël parce que xaalis bi yeyoowuma ko mhm. ba muy wax loolu voilà Aliou Sall il a insisté en tout cas fexe ba nga xamante ni ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko daal di jël boobule xaalis ba mu ko jëlee itamit dugal ko ci biir parti bi avec une transparence boo xamante ni macha allah parce que tey à chaque fois ñu gis par euh, Pastef aussi loolu particularité am la mooy xaalis bu dugg Pastef bu génnee itam dinañ def bilan boobu dañ koy exposer seen réseaux sociaux. Mhm. maanaam dañ lay woon xaalis bi fii la jógee xaalis bi diw moo ko dugal xaalis bi def nañ ci lii et à la solde lii mooy li nga xam ne moo des ci kees bi. te lépp lu des ci kees bi nii lañ koy defee. jërëjëf Fary. Mhm. ñu jël ngoone saaliw mi ngi ci ligne bi bu ko defee mu defal ñu benn décrypte ci message bi nga xam ne le président du parti Pastef daal dina koy euh, wax sànq ban njànget la ci am Ngoné ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ngi en direct ci Sans Limites TV. Empereur maa leen di fay eh, di nuyu également internet yi nga xam ne eh, boobaat léegi ñu ngi ànd ak yéen di leen eh, seetaan saa bu xew-xew amee rek ñëpp dañuy bàyyi li ñuy def dem jàkkaarloog Salim bi ci toog maa ngi seetaan sànq ba léegi. c'est normal quand même. Mm-hmm. te muy dégg la chaîne des grands événements. c'est normal mais le 19 niñ ko nar a waajee loolu dina doy waar. moom kon daanaka sànq maa ngi ko wax euh, fari ci plateau bi ne ko di nga tàllal nag waaye di nga yegg. <laughs> boobu xam naa day nekk xale du xam li ma koy wax. waaye xam nga euh, mbir mi dafa mel ne boobaak léegi ñoom ñëpp ñu ngi koy wàcc. muy le 19 euh, fi ñu tànn nag pour def ko. wax dëgg yàlla foog naa ne euh, war na mën a contenir ñëpp ñi nga xam ne war nañ fa mën a ñëw. Mhm. Euh, parce que bu Pastef wootee gis nañ ko keroog ci film bi nga xam ne mooy le projet ci Grand Théâtre euh, fees na fees koo xam ne place yi dafa matoon peut-être que Dakar Arena dina mën a contenir. assez de personnes euh, yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom ñëpp parce que bu Pastef woote rek euh, da ngay gis ne ndaw ñeeg ñëpp dañuy bàyyi li ñuy def euh, daal di dem wuy ji ko rawatina ki nga xam ne moom mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko ndax booy xool tey bu mu sol ci tàmbali bi rek ngay gis premier ministre